te boo ko xamee rek dana la dimbali ngir nga xam saw rommin ci àdduna nan ngay jaare ci moom ndax àdduna am na ñu fi jaar ba lekk seeni fan ba mu jeex tàkk te fekk lépp rek booba àdduna jéng na leen ci boppam waaye nag boo déggee aaya bi dana tax nga xam nan ngay rombe ci àddina saw dundin ci nan nga koy tërale ndax aduna danga koy fekk ci melo woo xam ne du soppiku yow yaay fexe ba soppi yow sa bopp xam ni ngay dunde ci kaw suuf te bañ a bàyyee sa bopp rek bëccëg yi ak ngoon yi ak suba yi ak bis yi ak weer yi ñu di leen wëndeel ñu di la wëndeel ci seeni doxalin waaye yow yaa war a am positif ci sa bopp ba nga xam ne yaay moom sëg suba xam lañ ciy tàbbal moom sa ngoon xam lañ cay tàbbal ak say bis ak say weer ak say at sunu boroom subhaanahu wa taala di ñu wax ne i'lamu xam leen kon daf ñuy xamal bëgg nañu xam bu baax lan mooy àddina ak tër aku aku meloom mu ne i'lamu xam leen ci ne annama al xayaatu dunia laa'ibun wa laxwun annama li wér te wóor daal annama mooy li wér te wóor na nga xam ne rekk alxayaatu duniyaa dunduk àdduna gu suufe gi leen rekk la te mooy laaibun wa laxwun wa ziinatun wa tafaaxurun baynakum wa takaasurun fi amwaali wal awlaad nee yi rekk la laaib ak laxwu lu ci nekk xeetu pola laxib nag mooy po moo xam ne nit ki mu ngi koy def ci ak ndawam ci jamono boo xam ne taxagul mu nekk mag lool muy sànq temps ci loo xam ne jëru ko ngir xañ na yu bari yoo xam ne gàlleegul ci kawam bàyyiwu ko xel tax na mu yore xol bu féex xel moomul yenn xalaat li ëpp ci waxtoom mu koy sànq rek ci li neex bakkanam di ndaw loo xam ne dépasse muy joxe lu sa njaboot dunde gàlloogul ci kawam facture courant yu war a fay gàlleegul ci kawam yeneen yi aju ci warte fi kër yépp rek lenn ci diisaayu loolu yëgu ko ndax gàlluñu ko jëlile naa nag li nga xam ne moom moo ko war ci digganteem ak boroomam ci ay ibaadaat ak i azkar ak ay doxalin yu rafet ya lislaam bëgg nga xam ne yooyu yëpp bàyyeegu ci xel lenn topp rek li nga xam ne mooy ak jotam na ko waaja waxe woon rek nee na xale yu góor yi moom bari na ci ñoo xam ne ñaari bàyyi rekk ci lañ nekk muy bool bi ak bal bi bari na ci ñoo xam ne buñ dajeeg bool bi ba dëgërlu ca rek daal gont ci li nga xam ne moom mooy bal bi di sànk rek seenu dund ci ak neen li nga xam ne nag mooy laxwu di loo xam ne jëfi mag la mag la moo xam ne lu bari war na ko ci digganteem ak boroomam loo xam ne bu ko bàyyi woon xel du tal dara lu bari itam war ko ci digganteem ak àddunaam loo xam ne ba tey bu ko yitteeloon lu bari du ko tal waaye tiwul rek moom it mu topp bakkanam ak nooflaayam ba tax mu tënku ci xeeti po yoo xam ne day soxlaal xelam ak xolam te su ko ca bàkkaar fekkul itam amul wenn yiwu ko ciy fekk wum ciy dolli ko xam nga ne moos àdduna buñ demee ba nga xam ne léeg nga xool ci tele bi fekk ci ay magi jëmm yu toog sol yére yu jot yu yiwe bu booleen xooloon sax te son bi nga xam ne mooy daw ci tele bi dégg ko nga gis rek seeni jëmm dangay jàpp ne ci lislaam lañuy war a waxtaane wala buñ ci waxtaanu itam ña ngay waxtaan ci lu am solo lu war a yitteel doomu aadama ndekete boo déggee wax ji rek maanaam làmb la ñuy waxtaane ci joxe ay xam-xam mel ne mbir moo xam ne moom rek daa bokk ci ëpp njariñ wala yu ëpp solo ci kaw suuf ci ab jullit walla nga diglu wax ja rek fekk ndeke ci football la ñuy wax walla ci yeneen ak yeneen yu bari ñu doon ay muskàllaf jox ko gëdd boo xam ne day mel ne moom lii moom ba ab ponk la waroon a doon ci lislaam jox ko yitte lool te fekk loolu lépp di ak neen magum jëmm daal di sëgg daal ci loo xam ne ma ngi ciy sànq temps mu yóbbu xelam yóbbu xolam te wenn yiw nekku ci loolu laxwu la àdduna nag yii rek ñoo ci nekk am na ñoo xam ne dañoo nekk ci mu xale moomu bañ ko jeexalee bay kàllafi di ay muskàllaf am lu leen war seen digganteek seen boroom am lu leen war seen digganteek seen moroom taxul ñu am pas-pas ak pëstéef jema na jiblu ci seenu dund yewenal ko ci seen ak seen borom ak seen ak seen morom xana ñu jall rek ci lahu gana xam ne bañ ci pom xalé rek dañu dal tab doone mak te taxul ñu ba am po dal di tàbbi ci li nga xamne moy lahu topat mbir yoy ba jéxal ci seenu dund am ñoo xamne buñ doonul ña nga xam ñoo nekk ca terrain ba di football ba ñu nekk ca lamb ja itam ba tey rek teewul fa la nekk ndax yitteel na leen lool jox nañ ko ab ciir lool ci seenub dund nga xam ne buñ ñëwul ci digg terrain ba itam ña nga ci seenub saal toog jaakaarloog seen écran waaye lool lañuy xool lañ cey waxtaane sax duñu bëgg mu raw leen daf leen di yitteel lool nga xam ne lahu moom seytaane def daf cee mbaal mbaal goo xam ne daanaka rek li ëpp boo xaaju nit ñi fukki xaaj danga nga naan juróom-ñeenti xaaj yépp mbaal na leen ci